bii nga xam ne ay góor yàlla ay jàmbaar ci yàlla taxawal na lu xem nii rawatina ki nga xam ne moo suuxat ci ñoom pas-pas boobu muy sang bu tedd bi nga xam ne lu jiin njaaga te mooy njaag ndax barab bu nekk ak la nga xamante ne moo fa feeñ waaye barab bii kat lii nga xam ne am na fi tey kilifa ak jataay bii nga xam ne mooy Cheikh Sambare jóob ñu ngi koy sant di ko gërëm nga xam ne jamono bi nga xam ne sang bi ñëw na fii lii nekkoon na di dund ci moom ndax nit ku nekk li nekkoon ci baatinam moom lay xëy di génne kon sang bi yow mi nga xam ne yaa xam jamono ji muy feeñ ba nga ñëw feeñal ko ci barab bii ak ci tolluwaay wi sant nañ la gërëm nañ la ci darajay sang ñaan kon nag dajale aw nit yombut luy ay chaise yomb na luy tànt yomb na waaye dajale aw nit moom dafa yombut te nit ñi nag njëriñ képp lañuy wër rawatina njëriñ bi nga xam ne moom moo leen di muccal ci ñàkk texe ndax am na ci ñoo xam ne lii tey ñu ngi koy wër fu nekk waaye xamuñu fan la ak naka la ndax buñ demee bay rang seen lekk ngir bañ lëndëm rek mbaa li nga xam ne moo ci aju buñ demee bay rang SDE di fay ndox lañ bañ a manqué rek mu ñu naan mbaa mu ñu sangoo waaye loolu lu muy wundu lan moo tax ñuy rang SDE wala ñuy rang lekk ragal guddi ak ragal dand ak ragal mar waaye loolu yi nag Cheikh musa borom daaru loolu la indi woon jamono kon bari na ñoo xam ne bu ñu xamoon li xew fii tey fii kenn waru feex mën a xaj ndax la ñuy njëkkante di ko fay Senelec ak Sona ak ak ak lu mën a doon buñ ñëwee ci xam-xam bii dañ ko fiy fekk ndax lii sang bii nga xamante ne. moo mooy sëñ Jóob aar nanu fu nekk yiir nanu fu nekk fépp foo xam ne woo nan nu fa rekk mooy sol dàllam dox ak tànkam ba ca barab yooyu ay yooni yoon nag kon bis bii mbooleem ku nekk ci ëttu yàlla ak foo mën a nekk bis bii sa bés la ndax yonent dafa wax ne jotti leen leen ma donte benn aaya la te benn aaya bi nga xam ne moom mooy defar jamono mooy laa ilaha illallaahu te laa ilaha illallaahu bari na ci ñoo xam ne ñu ngi koy waxandoog nit ñi waaye waxandoo ko ak nit ñi bokkul ak li nga xam ni moom lañ ci war a xam ndax jàkka yi ak jumaa yi ñu ngi xëy di wax laa ilaha illallah waaye wax laa ilaha illallah wax waxandoo ko ak ñoom ak àgg ca dayo ba bokkut ndax laa ilaha illallah bi ñu wax ne ku ko wax àdduna tukki boobu aarif yi la ko yàlla jox kon ku ñëwut ci ñoom laa ilaha illallah bii tukkal àdduna doo ci jot kon nag nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci barab bi nekk ci gox bi ak fépp fu ngeen mën a déggee kàddu yi na ngeen xam ne yonent feeñ na ci seen biir ndax yàlla moo wax ne li anna fiikum rasulullah dinaa feeñ yonent bi dana yonent bi feeñ na ci seen biir waaye yonent bi mooy kan mooy waa ji nga xam ne bu ñëwee ci seen biir moo leen di laabal ci ndox mi nga xam ne mooy ndox mu fàddu mi te kat bari na ku daan wax ne sopp na Serigne Touba bari na ku wax ne sopp na Alaaji Malick bari na ku daan wax ne sopp na Cheikh Moussa waaye ñooñu ñëpp tey sang Jóob kurus mii moo ciy seen cër yéen waa gox bi yéen ñi nga xam ne taxaw ngeen ci barab bii di seen mu naan leen dama ni ngeen naan naam na ngeen ñëw ci moom ngeen laaj ko li mu yor mu jox leen ko ndax mooy tax ngeen mën a mucc kon dama kontaan ci bis bi ba tax kàddu yi ma bëggoon a wàccee sax maanaam mënuma ko ndax li tax mooy ku sant rek yàlla nee na dana la dolli waaye sant kuñ defal la te yéen ñi nga xam ne yëg ngeen lim leen defal ba ngeen taxawee bi mbir mi na ngeen xam ne mbooleem lu ngeen fi def ci ndollan la la jëm ndax li tax bari na ku yàlla defal te yëgoo ko waaye dafa fekk xamaluñ la ko rek waaye buñ la ko xamalee bu boobaa nga sant kon yéen ñi xam dayab cant bu ngeen cantee yàlla wér na te dëggu na kon sang jóob yàggal wéral yàggal wéral yàlla na fi yàgg te wér yàlla na yàlla yokk la yéen sang yi suñu ginnaaw yàlla na leen yàlla yokk seen fan guddal seen wéral seeni cër ba li ngeen naal ci ëttu Cheikh Moussa ngeen am ci lu kawe seen njort waaw mënuma bañ a sant ki nga xam ne tey mu ngi ci jotaay bi muy Jóob den ndax bi ma dajeeg Cheikh Ahmed Dame moom moo yóbbu ci Jóob den waaw balaa may gisanteeg sang ñaan moom laa giseen kon sang Jóob yow it wéral yokkul yëkkatikul yal na yàlla wéral cër yi yokku la saa ir ak baatin barki Cheikh kon nag mënuma xaabaabal ndax dama kontaan bis la boo xam ne waaw da ma dama bëggoon sant ñëpp gërëm leen waa kenn ku ci nekk waaw kontaan naa ci yow bég naa ci yow waaw mel na ni man ngeen ko defal yal na yàlla yokk te barkeel jaa ngeen jëf ci liggéey bi